tey nag suñu waxtaan bi yow ma dama leen ne kaay leen ñu waxtaanee lu xew si réew mi réew mi nag wax dëgg moo neex yàlla dafa tege tembe réew mi dafa taga tembe rey gi bari na si réew mi nag waaye rey gi am si réew mi duma ko bileemee nguur gi jëraan saar rey guy am si réew mi ah man du duma ko nguur gi su ma ko bilee nguur gi si other side bi laa leen a bilee mee ndeysaan ñu toog fi këram ñu gis fi very sad incident bu xewoon si hostel bi Friendship Hotel very sad incident xale bu góor bi xaw ma waaye xale bu jigéen bi xam naa xale bu jigéen bi xam naa ko yaame gaale Samba nuyu naa bu baax a baax ak suma mag yi sang seeka yéen ñëpp maa ngi leen a nuyu di leen bismillah ci plateforme yi Serigne Jamano waaw xale bu jigéen bi xam naa waaye xale bu góor bi xaw ma ko tey maa ngi toog rek beneen xale bu ñu wax ne somtin Diallo xaw ma baax Ba xaw ma somtin dafa moom dañ ko jam xale yu ko jam. nii la ñu leen rombe ñu ngi leen xaan ñu ngi leen a yóbbu si dentiste bi pour yóbbu seet seen boñ yi ñaata at lañ am ma laajte police officer bi lan moo xew mu ne ma ñii dañu rey nit sànca ba su lay ju leen a yóbbu mu ne ma si dentiste bi fii ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko ah beneen rey moo amaan mu ne mu nekk lu tiis si réew mu nekk loo xam ne nii si dëgg dëgg dëgg dëgg tey dina leen wax nu dorog di duggee si réew mi dama waxoon ne duma si yéey duma si yàbbi parce que soo si waxee dina am ñoo xam ne xëj na dinañ gisee ne danga leen yàqal soo si waxee dina am ñoo xam ne dinañ gis ne yaa ngi yaa ngi leen a yàqal waaye balaa ñoo yàq société bi ñoom ñu yàqal leen yaayi biram njaayi binta yaayi nene jallo mi salminima binta babukar jallo mi salminima no bete dinaa leen wax nu dorog bi du duggee ci réew mi tey taay bu ñoo wax kon nu mooy duggee ci réew mi dinaa leen ko wax Gambia tuxatuñ taay taayi Casamance bii Gambia tuxatuñ ko de taayi Casamance bii Gambia tuxatuñ ko te borom xaalis yi ci réew mi waxatuñ que temps yi Casamance bi temps buñ de wax skong moom la ñuy tux nu mu fee duggee nag tey dinaa leen ko gis naa ne suñ société bi mu ngi yàqu incident bu amoon Friendship Hotel si hostel bi si dëgg dëgg dëgg xale bu jigéen bi xam naa ko bu ma ko déggee nag mu nekk loo xam ne nii I was very surprised président Moussa Sissoko mu nekkoon loo xam ne nii I was very surprised parce que si dégg xale bu jigéen bi nekkul ne dama ko xam nii suma mbokk la si saay ci papaam am na ñenn nag ñu ma gis ñuy def Facebook live di dul rek ñu ne xale bi papaam kenn xamu ko ale bu jigen bi papa mu ngi tudda Ousmane signal ku wax ne kenn xamul da ngay gat waxal ne xamulo yow am lolou mu ngay wax way bul ne hamut xamul papa am mu ngi tudda Ousmane signal suma ma yenn mbokk ñoom Souleymane Pa signal sen xale bu jigéen bi mu nekkoon koo xam ne duy jógee suñ place bi Westfield des yu passé nele bu yàgg sa kooloon na fi cee benn programme mu ngi dëkkoon si ñoom siroy incident bi nag wax dëgg moo ne yàlla xapoon na waaye si dëgg dëgg dëgg dëgg xale bu jigéen bi xale bu yàllu la de lu jaar seen diggante nag yàlla moo xam lu jaar seen diggante yàlla xam xale bu jigéen bi it suma xam ko nit ki nga xam biiram ak biteem is very difficult pour nga toog nga xam nit ki biiram ak biteem is very difficult especially koo xam ne bokkul ak moom kenn especially koo xam ne bokkul néeg bu a fanaan waaye Kumba du daan jógee si ñun Westfield dafa daan ñëw. mu nekkoon xale boo xam ne nii she is very respectful to us waaw mu nekk nit koo xam ne she is very respectful to us nekkutoon ku bari wax bu baax man bu ma gisee ñu publish ko ma gis nataalam bi rek straight away dama kool suma benn mbokka ku sant si ñaan ne ko diw mu ne mën na mu ko ah gis nga lu gaay waa Watson Gambia publish mu ne naa ne ko diw dee daf daan ñëw si ñun de mu ne ma diggala ma ne ko xaw comme lii mu demee nii mu ne ma xaw ma mu ma xaw ma waaye nag wax ji bari na am na ñoo xam ne ñu ne daf daan jaay per yi which is loo xam ne nii duma ko mën a dinaay parce que xëy na ñoom dañ ko ko gisee waaye man nag xamewuma ko woon loolu ñenn ñi ñu ne daf dee tuxtaay loo xam ne musuma ko koo gisee it waaye xëy na nit ki loo ko gisee wut am na ñeneen ñu ko ko gisee mu nekk loo xam ne lu ma mënut a weddi la du ma dàq loolu lu may dàq kay mooy ku toog nga ne papaam kenn xamut ko dangaa ne xaw ma baayam xaw ma papaam dafa génn aduna Ousmane Siñaan dafa génn aduna. moo ko jur xale boo xam ne lay naa laaj si dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg comme nu ma leen ko waxee man ma déggee incident bi daf ma ñëwee kooku parce que expect gu ma woon such thing capable na pour mu def ko capable na pour def lu mel nii ku ma eewoon guddi nga wax ma ko ah dinaa la buñ ko doon wax keroog de ba toog benn garam place ñu ngi wax benn ñi di wax ni xale jigéen yi nag nañ leen leen oytu nii ak nii ma ne leen ah man de si dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla defal na ma man dama dee ñaaw njorto man lu bari si Facebook bi fii dama ko dee wax nit ñi sax nit ñi jigéen soo duggee suma néeg naka laa la dee ak naka laa la dee tirité taabul moo nekk suma bunti néeg bi ne la si gannaaw. gis ngeen taabul bi moo nekk na le soo duggee si bunti bi ne dama laa wax tegal sa baag bi si taabul bi tegal sa mobile yi si taabul bi tegal sa everything si taabul bi loolu laa laa njëkk a wax parce que jamono du tey la lëndëm jamono dafa yàgga lëndëm te doom aadama all the time den am baat suspicious del am tamit nekkul nit ku nekk nga óolu ko xale jigéen xale góor yi dañ day faral di toog léegoolee sax yoo xam ne ni ñoom seen bugga bugga yi man bokku suma bugga bugga si ñenn man dama leen ko dee waxtaan yi soo waxee ñu ne ah jigéen de ma ne leen su ngeen oytu oytuwul nag yéen ñoo xam ne nii da ngeen bugg a muccam sulla ngeen baalal ma si kàddu gi nag damay wax num amee yéen ñu ngeen xam ne nii da ngeen bugg a mucc am oytu leen ko suma mas gi nag man musuma bugg a façon yi yooyu noonu parce que óoluwuma ko ñemewuma ko ma leen ne ku oytuwut fii ñu seex sa balankaar gi fii waa ji goma si koom mun ngaa ewoo ji mun ngaa ewoo ji barsàq oytu leen ko gaay yi ree ba tëdd si suuf ma wax leen ko ma ne leen loolu man dalut suma xel mi ma leen man dallu suma xel mi de façon yooyu noonu bi am na yu bari yoo xam ne ni ay yëfi dugga motel yi ak yeneen dama ko dee oytu dama ko dee oytu bu baax a baax jigéen ooma néegam ñemewuma soo ma ooyee kenn rek laay nekkee si biir néeg bi du ma nekkaat du ma nekkaat completely nit balaa ngaa def dara fekk nga comfortable soo comfortable doo mun a def dara maa ngi toog ak suma jabar keroog am na benn layta bu tegoon si palanteer bi giriyaas moo nekk si palanteer bi ma ñëw ma génnee layta bi ma dem ma yóbbu ko si benn ruxa abdoulaye sise nowi taala semestre amérique amérique maala ngo kuto mangla nuyudi wahal alaji bi wahal madame bi manko nuyu bu baaxa baax laay ma génne layta bi mu ne ma lu tax nga génne layta bi ma ne ko gis nga dañ nekk si génération boo xam ne nii bul dee oolu dara ma ne ko nit mun naay ñëwee si gannaaw néeg bi mu gis layta bi si giliyaas bi mu xar giliyaas bi mu jël layta bi mu taal grillage bi ba pare mu bàyyi ko fa mu dem yoonam mu ne ma déggala la ma ne ko always nañooy am bad suspicion bad mind nañ koy am nekkul si lu nekk nag si lu nekk de waaye nit ki del fo daf la dee dimbali si sa laay Christiana Jaata sankung Fati maa ngi laa nuyu bu baax a baax a baax a baax understand ngeen nit ki nekkul lu nekk waaye sa mi nay dox man duma dee nelew guddi ngelew su dooree korget bi sax dama dee jog maa ngi amee toj laay ci suma boppi lal bi mag jóg ma nekk di nii suma jabar dafa ma dee wax ne yow kanaa melentaan la doo nelew ma ne ko eh, man lii nii laa since day one Anta Kaaji Aji Ami Jeng Bella Aji Ami Jeng Bella Jeng Salimatu Diallo mi sàmmini ma wala waaye Ali Haydara tooki ma ne ko nit only time danga war di am bad mind booy bi nag xaw ma ko mu doon liggéey ak suma benn xarit Ali Haydara ñu gën koo xamee si Haydara mu nekk bo boo xam ne nii very promising young man la mu nekkaat beneen booy mu nekkaat koo xam ne tamit xelam mi xel mu yaatu la amee koo xam ne nii ku amoon ambition la am éen waaye nag seytaane fu mu xëjut rek la dee dugg fu yàlla def nag seytaane dugg seen diggante ba bakkane booy bi des ci yàlla ko yàlla yërëm ba xaaree ko ajana lépp loo xam ne nii dafa nekkoon nim seem si aduna yàlla ko ko yàlla mu tali si aljanna xale bu dee ndaw neexut xale bu dee ndaw dafa metti famille bi yëpp maa ngi leen koy jaale parce que nga am doom maa ngi doon interview bi Fatunatu Wok benn yaayam mu ne moom moog yaayam ñoo bokk ak baay mu ngi jógee Casamance nga am doom mu dem ba fu ñu amee si moom yaakaar mu génn àdduna lu metti la neexu loolu yëpp mu nekk ay jafe-jafe yoo ni ay la ay murder case ñu ngi am ay murder case ñu am si dëkk bi yoo xam ne ni si septembre bi rek murder case yoo xam ne nii am nañ si dëgg dëgg dëgg soo ko seetee bari na xale yu ma romba tey ñu ngi leen handcuff ñu ngi leen a yóbbu si dentist bi Westfield foofu xale yu ndaw a ndaw lañ xale yu ndaw a ndaw lañ depuis Radio dañ daan toog di wax foofu noonu di advocate xale yi naka la ñoo abusé drop pipeline si boori traffic light bi foofu yàgg nañ di nekk foofu noonu di ko advocate freedom radio because xam nañ lan la drop di def si askan bi xam nañ drop tamit ku ko use lan nga capable pour nga def ko pour def ko loolu tam mu fi gis ngeen second hand bagage yu dee dugga si si dëkk bi second hand bagage yu dee dugga si dëkk bi police nag da ngeen ma dee seetaan bu baax a baax a baax ak commission na si interior minista danga ma dee topp si suma facebook live fii bagage yi container yu dee dugga si si dëkk bi fii pour leen seen bët yi si ñoom am na ñenn ñoo xam ne dañ dee isi bagage ak conteneur si dëkk bi foofu lañ dee dugal dono gi ma leen wax lu ne lu xam la am na yenn bagage si conteneur yoo xam ne nii toogu yi yooyu lañ dee jël ñu xar ko ñu dugal fa taay kon bii foofu lañ dee toog di fa dugal per yi ñuy lor suñ xale dëkk tey déglu leen ma ma put raw waxuma ne bagage yi yi yëpp loolu la dee am waaye dafa am ñu dugga si bagage yi second hand container yi loolu moo leen ci dugal dama ko gëstu ma ko ba xam si lu ma teg wax naa leen bugg a wax rek du may tax wax yàgg naa koo xam nag waaye comme nu ma leen ko waxee am na loo xam ne nii asalaamaaleykum naam jam tan ala ala mbiɗa ni he programme goto eyi a siwa hoɗ a wino kam hande yahata mbiɗa andi nden simi kariɗo mi remat toon mi jengata eyi bisimilla eyi eyi eyi ay bismillah bismillah inshallah oto chargé xam naa ko bu yàgga waaye ma ne duma ci wax soo si waxee dañoo gisee ne kii mu ngi yàq suñ business waaye nga wax ci moo gën bi di yàqu nga wax ci ay bakkan di si rot waxoon naa leen fi last time xale jigéen yuy naan dorog fii danaa ko jàll mu sànni ñu ma mu way ma yi de trop Seexu Keita suma mag yéen ñëpp maa ngi leen am fi last time ma na police yi commencé sori kay na national assembly bi dugal bill boo xam ne kuñ tiyee per yi minimum sentence lañ la sentence five years dëkk soo koy aar si ay luwaa yu tànga jir si nga aaree dëkk bi waxoon naa ko fii si suma Facebook live yi ñun toog nekk si ay national assembly lii nii di wax ay million di wax ay cas allowance amalu du intérêt xam ngeen lan moo ñu amal intérêt ay loi yuy protect citizens of the nation loi yoo xam ne dañoo protect suñu youth si ñun loolu lañ dugal loolu moo nekk rôle yi national assembly loolu bu ma ko fi commencé di wax yàgg na waxoon naa fi ma ne leen ne am na kilifa yu nekk si dëkk bi sooy bi te kontaaguloo leen sa diil bi du jàll sa diil bi du jàll ñu ngi toog fii si dëkk bi fii ñu ngi jaay jolof tey lañ gën a jaay jolof yaayaa jàmme téyewoon na leen tëjoon na leen fi mu bàyyi seen senten bi mu jeex ñu bàyyi dañuy yàggu thank you Garga Cissé foofu lañ bugg a ngeen ay loi yoo xam dafa protect the citizens of the nation dafa protect the youth of this nation ñun loolu lañ expect toogee ba ñu ne crime rate mu ngi xay si Gambia bi fii wallahi billahi tallahi taayis koŋ bi si loolu amul Gambia koŋ taay bi fan la amee Europe parce si iron base lañ ko dee ji wala si iron loo xam ne ker si ker la taay boobu tey moo nekk si dëkk bi fii moo fi gën a bari per yi ñooy naan bu njëkka Sénégal la daan jógee lu ko doon ici Sénégal seen fas yii di course di di def race France la per yi daan mu ñëw Sénégal fas yii di def race Sénégal fas yooyu lañ daan jox per yi ñu koy naan pour ñu am énergie donc ren mooy jabu seeni hélas Hélène Mbengue nuyu naa la bu baax suma sista bi per Sénégal lañ daan ñëw ci jamono yooyu am na benn boy man dama dee bugga di lijjanti lu sa président nuyu naa la Paul Sané man laa nuyu bu baax a baax a baax di la ziare jaale sa kuyin bi dinaa leen ñamal si kuyin bi tuuti nag si suñ african président yi ñàkk a fayda yi ñàkk a classe ñàkk a xorom leen four hundred years still now ñu ngi leen colonise parce que léegi seen xel yi lañ colonise honnêtement ngeen jamono boobu per yi Sénégal la doon jógee fas yii di Sénégal ñoom lañ ko daan nandal pour ñu am énergie ci seen rees bi xale yi di ko utiliser Sénégal ba per di jógee Sénégal di ñëw Gambie di jógee Sénégal di ñëw Gambie di jógee Sénégal di ñëw Gambie loolu jamono Yaya Jammeh la per yi di fi ñëw waaye booba ñemewuñ woon bu baax. parce que sàcc xam na kër bu am xay ñemewuñu woon bu baax tey police bay waxoon na fi ne pen yi gambi lay gambi bari di ko saaga loolu mooy dëgga loolu mooy dëgga per yi fii la dee jógee koo léegi na ñenn ñu dee isi ay container container mbalit lañ dee isi waaye fekka nekkul container mbalit bi moo am lu ëpp value mu ci biir container mbalit bi toogu yoo xam ne tubaab yi day nañ ko besoon na toogu yoo xam ne nii tubaab yi sebel nañ ko besoon na gis nga second hand bagage tey soo buggee xam second hand bagage yi gën am value tey si con ñu nekk si container Amérique la day jógee tey Europe ëpp doole gi bari tey loolu lañ def seen liggéey léegi su gaa yi isi container si lañ dee xar toogu bi ñu dugal dorog bi si biir toogu bi ida mu nekk taayis koŋ bi ida mu nekk peri ida beneen dorog bi foofu lañ ko dee dugal suñ ko dugalee foofu container bi suy ñëw ñoom nañ kuy jëli container bi su container bi demee ba wàcce dinañ ko de xaral toogu nangam génnee fa nangam diw dina ñëw jox ko ko diw moomu su ñëwee dina la jox nangam wala fekk diw moomu yónnee na xaalis bi wala diw moomu jël na xaalis bi transfert si banque bi xaalis bi dugga suñ xaree toogu bi ñu génnee ko ñu jox ko ko noonu la dorog bi di duggee tey si jamono ji si réew mi noonu la kong bi di duggee fii si dëkk bi fii taay bi gis ngeen tey booy yi ñàkk fayda yi ñoo xam ne gor ettuñ amuñ dara ñooñu ñoo des si tuxi taay Casamance bi ñooñu ñooy tux mbaliti taay bi waaye ñoo xam ne am nañ xaalis am nañ di capability ñooñu duñ tux taay boobu noonu ñooñu tey dëkk bi fi ëppa doole gi yëpp kong lañ dee man ma leen ko wax dama si def suma investigation bi xam si luma set wécc understand ngeen léegi lu tax ma leen ne government bi si beneen side bi laa leen a si reyante gi mooy si side boobu noonu tey war nañoo am ay mesos yoo xam ne ay concrete mesos yoo xam ne nii dañ koo jël ba ñu bañ gis ne nii poso gi ñaawteef yi dàq nañ ko si réew war nañoo jël ay matuwaay yu wér ba nga xam ne façon yi ñaawtee fii dàq nañ ko fi lu ma leen wax itam mu nekk conteneur yuy wàcc Sénégal itam mu nekk conteneur balal leen ma ngeen xool doon hello kii mu ngi maa déglu la kan niin. min komi darata ko ko ɗoyi walla koko hesi min aɗa ndaɗa joni joni ko hesɗi aɗa kam wiya ko ɓooyi mi salminima mi aɗa ko mi aɗa kotiri aɗa haala tan aɗa haala ɗi mi ana detti mi salminima mi yeddima kon ok par ce que mi sikkano ɓe ɗo koko ɓooyi aa oɗo sargen police si lii lañ war a jël ay matuwaay su ma toogee last time ma dégg SIS office bi ñu ne depuis change of government bu mu amee ba tey amul kenn si custody NIA yi amul kenn ku nekk si custody NIA yi yéen da ngeen foog ne NIA di jàppa nit di tulli rek loolu mooy liggéeyi NIA dem leen diig Sénégal ngeen seet am na ku ma xam si moto dóor yi la jëndoon moto dóor yi nii di jógee foofu si moto dóor yi réew mi yëpp moto dóor la ay moto dóor la réew mi dañ ñeme dóor réew mi dañ ñeme marto réew mi dañ ñeme marto ñeme dóor ñeme bagage si dóor ñaari moto ñu ngi diig Sénégal ñemewul leen a jëli gis naa benn booy boo xam ne Gambien la saaf na ko si prisini Sénégal bi because of pere yi billahi wal kitaab pere yii la doon jëlee fii di ko sumogul di ko yóbbu Sénégal di ko fa jaay ñu jàpp ko Sénégal two years la fa saaf prisine bu mu fi ñëwee ak léegi mu tudd wan moom kon am na ñu fe jëlee pere yi di ko yóbbu Sénégal loolu amul weerante ku xamul xamoo waaye lii SAS bi seen gëstu dafa des moo tax ma ne leen réew mi intelligence daf fi dee xam ngeen lan moo fi am léegi soo toogee di wax Facebook live fukki junne si ay di ñu ngi si sa Facebook live soo toogee nga foog ne nii sa viewers yi nii yëpp si ay di ñu ngi ñu ngi toog di la di la di la di la bàyyi xel police yaa ngi seetaan soldat yi ñu ngi laa seetaan SAS bi ñu laa seetaan si sa Facebook live loolu moom am na xam naa ko man moom xam naa moom man ñu ma dee seetaan xam naa ne bari nañ ci ñoom ëppa doole gi suma xare ci police lañ waaye si dëgg dëgg dëgg matuwaay yu ñu war a si affaire yi bi bii si réew mi affaire yi kong bii affaire yi yi di dugg si dëkk bi des na des na su fekkee police yi seen gëstu des na ak SIS bi NIA bi seen gestu des na CID Drone Squad suñ parliamentarians si MP yi nañ dugal si National Assembly bi loi buy protect the of this nation loi bi man dama gis ne suñ député ñoom du ñooy dugal loi buy protect youths yi ñoom daal ñu ngi si ay ñun suñ alawaan si suñ kër yuñ am fële suñ loon si ñoom si loolu rek la ñooy taxaw waaye luy defar réew mi duñ si taxaw beneen luwaa bu ñëw boo xam ne daal ay millions la ñu vote ko ñu toog naan ndox jàmba ind mu fanaan ñun si ak MPs yi loolu mooy seen liggéey ñeereel bi Gambia lack of patriotism dafa des si ñun lack of problème yi Gambian la lack of patriotism Gambian yi dañ lack patriotism naka lañ laajee petro sisim mooy sa sa palaas sa njoboot sa poos sa palaas sa njoboot réew nag loolu du ko yóbbu kanam loolu du defar réew MP yi it's time fu mu nekk nii it's a time ngeen dugal loi ngeen dugal benn bill ci bi loi boo xam ne nii loi bu xaas la moo nekka ci affaire yi drogue gis ngeen drogue dii la boobu noonu américain yi téye woon colombian drogue dii la boobu noonu ku duggoon si wanagam bi ba gars gas tonel bi ba mu ñëw ba mu si si biir wanagam bi mu duggee fa mu génn si tonel bi gars yi dañ ko roba di ba téye ko parce que jaaykati drogue yi ñoom ñooy ñoo xam ne nii capable nañ pour def lu nekk jaaykati drogue yi ñoom ñoo nekk ñoo xam ne nii dëkk buñ duga soo oytuwul dëkk boobu noonu dina influence yuut si yëpp te suñ influence yuut si si dorog affaire si dem bet si level boo xam ne nii is fu may gisi Gambie suba ne du ñu neex de yeewo ba mi salmini yeewo ba mi salmini fu ñooy gisi Gambie suba du suba du neex xale bu am 17 years mu jël paaka mu rey moromi xalem jigéen fu mooy toogee di rey góor fu jigéen di toogee di xotti biiri góor ba sa buuti di di génn loolu is not normal there is something wrong with us am na lu dugg si ñun lu bokkul si ñun am na lu gane si ñun lu bokkul si ñun am na luñ aada woo lu nekkul suñ aada am na luñ aada woo loo xam ne du suñ aada asanatu bari nuyu naa la vip new jersey uncle fodé nuyu naa la success bi di successful contractor in this town yéen ñëpp maa ngi leen a nuyu di leen ziyaare bu baax a baax a baax di nuyu suma gaay yi ñoom suma yaay ji anti adnes drive america ñoom maam biige siñaan ñoom ki nansi ajaratu hadi gomesin ñoom ñëpp suma sanse bii nag pa Babou Diop borom Amerika moo ma sansel borom Kër Jarga Diop pa Babou Diop moo ma sansel sanse gu bo nañ bokk yàlla ñu bokk ñu ñaanal ko ñun ñëpp yàlla defal ko jàmm yàlla na jàmm paan si ak paan si njobootam waaw soxna Ndié Guèye understand ngeen dañ bugg a aada woo lu nekkul ñu ne ku sa ànda ànd boo dem fekk fa morom ñun dañ bugg a wàcce suñu aada dañ bugg a wàcce suñu aada xale yu bari ñu ngee tux fii wax naa leen ko fi suma programme bi foo last one bi ma leen man maa dem ba gis xale bu jigéen ma toog ak moom ñoom ñetti xale yu jigéen lañ ma ne leen ne dañoo luwaas néeg dañoo luwaas appartement am na drogue boo xam ne nii si ay balum la dee nekka si balum lañ ko dee def soo ko gisee dafa mel ni lu nekk si banta banti plastique nii danga ko dee ubbi mu ne lifin nga dugal ko si balum bi ngay fuuf filin bi nag according to nu ma ko gaa yi waxee filin bi ay secondes la dañ ko dee boole ak sàngara di naan suñu waree dem club dañoo jënda per bi ñu naan ko per buñ dee wax gaaw suñ duggee si club bi dañ dee gis xale bu jigéen bu nekk si club di fecca di fecca ba ñaxa boppam bi ba si suuf mu ngi siit mu mel ni kuñ tuur paani ndox fekk xamul fu mu nekk mu ngi am énergie du nelaw dangaa nekk di fecca si bi di fecca si club bi ba borset ñu a dem ñu tëdd ñu nelaw suñ jógee bi am na benn place boo xam ne nii foofu la ñoo dem dajee ji ñu ne ma after party lañ ko di ooyee ñu dem foofu noonu foofu la ñooy nekk ñu nekk fa ba boole twelve ci bëccëg ñu doon faa jógee ñu tasaaroo ñeneen ñi ñu ngi amee seen ay appartements loolu mooy dog ci réew mi tey façon yii la MP yi war a dugal police yi dañ leen war a empower naka lañ war a empower police yi mooy ñu dugal leen ay loi yoo xam ne loi yi dafa protéger police tamit loi su mun ta police loo def ñu ne la ne yaa ki loo def ñu ne la ne ki am na ñoo xam ne dañ disaaf ñu mbéj leen am na ñoo xam ne dañ disaaf ñu kig leen am na ñoo xam ne dañ disaaf ñu lee leen sax waaye sécurité bi sax amul ñu leen a protéger loo def ñu ne la human right human am ji. loolu def ñu ne la human right human right yoo xam ne nii ñoom la ñoo si human right suñ tiyee ni si drogue fuñ lay yóbbu ak lu lay def da nga dee dootoo ko ñaare da nga dee dootoo ko ñaare waaye ñun ay roy dàq si luñ dugg dañ ko di tey human right human right moo tax tey ñu nekk si problème yu bari police yi dañ ñemeetu sécurité bi ñemeetuñ dëkk bi mu ngi yàqu day by day day by day dëkk bi mu ngi slowly slowly slowly slowly slowly slowly te dama leen a wax leen na xàppati bàyyiwul si mburu dara de xàppati bàyyiwul si mburu dara lu ñooy di ko mo ñoy isil musiba suba dekk bi yalla ñu yalla musal si problème waye rew mi su fi problème amone tay di nga gis lu ñaaw problème si amone si rew mi di nga gis lu ñaaw lu ñaaw di ko gis si rew mi di fi do gis xale bu am 15 years mu ngi amé jassi di góor fekk bu ngi dama dee toog ne fii ay xale yu ndaw dañ ma dee romba dama dee xam ne xale yi nekkuñ dama dee xam ne xale yi seen parents yi luus nañ leen dama dee xam ne xale yi kenn mënatul la ne defar si aduna dama dee xam ne xale yi pour nga réhabilité leen it will take lot of lot of time pour nga réhabilité leen because ay drug addict lañ marijuana addict lañ dañ leen dee gis léegi toll nañ foo xam ne tey supermarkets yi am na benn sangara boo xam ne indian yi ñoo ko fi dee ici yi ñoo dee jaay sangara boobu noonu fii si supermarkets apprenti yoo xam ne ni ñoo nekk si garage si Banjul Banjul gi area coopérative yi garage si Brikama boobu lañ dee naan su may wax dama su fekkee lu ma wax am yéen ñu may seetaan xam ngeen si lu may wax

foofu la ñooy jëndee butéeli sangara yooyu noonu di ko naan soo ñëwee fii di war a jàll Banjul fii eh Banjul Banjul Banjul si loxo sooy nelaw tuuti fekk dugal nañ seen loxo bi si seen bi sa biir bi ba rëcc nañ ko. loolu mooy problème bi dem leen indien yi ñoo di si sangara boobu si dëkk bi lan la suñ MPs yi lan la suñ lawmakers yi def. pour ñu mun a protection yur si bañ mun a bàyyi sàngara boobu noonu ñuy jaay tey si supermarket si nii lañ ko dee jëndee léegi léegi léegi léegi soo demoon fii léegi léegi si supermarket si area west fii toog fa benn five minutes rek boo yi di la romba di dugga si biir supermarket bi di jënd butéeli sàngara yu daw yooyu noonu gin and brandy thank you very much sar maki mikiliki gin and brandy xam nga man yooyu xaw ma waaye xam naa ne daal butéeli sàngara yi ndaw la ñu ngi am ni butéeli yu fifteen dollars yi réew mi nag taa yi dañ fay tere romance ku fi oytuwul romance di nga dugg si tuuxi mu ne loolu la góor ñi wax taa yi góor ñi ñu ne fu mu romance dañ koy daw man nag ma leen moom mucca balankaar koytu leen koy koytu maccante balankaar dinañ dog sa balankaar bi guné gu dem naan sangara wala naan fer ba mandi ka dem nga xëcc ko si appartement waxuloo dara ponkal moo am lii lu ma la mënta wax mbur nga dem summeeku nga ji xale bu naan fer ba mu ngi mandi nga toog nga summi sa tubéy gi nga ne sa balankaar gi nga koy jox wala sa kuur gi nga koy jox pour mu mucca ko soo oytu su sexee sa kuur gi su na matee yow foofu ngay jaaree su soobee yooyu tamit keneen mooy xam bànneexi jigéen waaye yow dootoo xamati moo tax man nag man yooyu ñemewuma ko ñemewuma yooyu su ngeen eboo nag ngeen bàyyi seen xel ngeen oytu yooyu gune yi léegi dañ bari gune yi mandi waaw nga toog fii nag nga waxtaan fi ak gune nga digoon ko fi dara defuloo ko gune gi toog fii di la fi meeb di la neexal di neexal di neexal di neexal gune su lay neexal daw ko gune su lay neexal daw ko waaye nga toog fii gune toog fii di la neexal di la neexal nga dem nga sumeeku si néeg su ma waa ji am na ñoo xam ne nii nag dañ bugg a màccate trop moytu leen màcc gi gune yi léegi dañ bari gune yu mandi de ku fi dem fii nga sumeeku fi ba jël sa kuur gi nga joxe ko pour ñu màcc ko soo ituwul keneen mooy dem walik si génn gi waaye yow moom dootoo debbu si génn gune yi léegi dañ dee mandi ëpp doole gi bari nañ ci ñoo xam ne dañ dee mandi man nag yooyu musuma ñeme parce que suma xel mi dal loolu man suma suma xel mi dalu ci waaw suma xel mi dalu ci yooyu wax dëgg moo ne yàlla nit ki nag loo ñemewut waxal ne ñemewuma ko waaw suma xel mi dalu ci yooyu loolu tamit nag si la bokk léegoo léegi nag foog sëriñ jamono mu wax leen lu méngoo jamono foog sëriñ jamono wax leen luy dox ak jamono léegoo léegi sëriñ jamono foog mu wax leen loolu parce que dafa bari ñoo xam ne nii amuñ exposo amuñ exposo te gis ngeen góor da nga war a am exposo góor soo amul exposo xale jigéen yi dinañ la dugal si tuuxi duuna wala dinañ la dugal si gaali wala kaana góor da war a am exposo fii nag borom xaalis yu bari sax amuñ exposo loolu moo tax xale yi di leen rey aha moo tax xale yi di leen rey da nga fay gis borom xaalis boo xam ne nii amul exposo gune yi dañooy toog sumu waa ji nga toog tuuti léegi ko rek nga toog nga yuuxu woy yaaboo yaay woy yaaboo yaay woy suma baay woy yaaboo yaay woy suma yaay dinaa la may suma maam dinaa la may suma baay yu yéen a nit amal exposo wala nga toog ñu sotti la orit nga foog ne aduna bi fii la em rosa nga góor da war a am risis góor da nga war a am risis waaye nag ku ay tuut orit ice cream yi te